soxna si eh? ñu ngi lay fay ñu jam am jàmm lan ban témoignage nga ñu mën def defal ci ki nga xamante ni moom Boy Bambara mi dëkk euh, ma xamal la man yar waaw sama sama papa la sama xarit la démb bin ma ko tàggee xalaat lu bare bare bare bare maanaam dafa am njërmande boo jaaxlee sa kër néegu sëy boo ñëwee mu defal la wax la jox la nga yóbbu sa kër paa bi amul doom amul xarit amul sët amul dëkkandoo ñëpp la amul amaloon jàmm yërmande koñ ba ku ci am problème mu nekk ci ba nga mu sedd kuy man démb barke Sëriñ Tuubaa démb bi ma ko déggee nelawuma ba bët set heure bi ma ko doon yëg fekk heure bi jot na mënuma ñëw jóge jëppal gi ma nekk ñëw Parcelles sam sam papa xamal naa loo xamul xol bi maanaam xol bi fekkee xol yàlla xol lay fay dana ko fekk fa mu tëdd ni mu demee nag dem bu bett lay demee parce que noonu maanaam man bi ma fi gëjee ma tagul une semaine waxtaan nag man waxtaan yu yàgg maanaam waxtaanu àdduna yoo xam ne du baree baree daal mm. xanaa jaaxle rek toog fi ma toog kese nga xam ne yàlla rek moo mën yàlla moom bu soxlaa nga ñàkk waaye ñun papa xajoon na fi ñun rek moom rek leen dese woon ñëpp dem nañu parce que sëñ Tuubaa ñëpp dem nañu moom leen dese woon doon muñ mana muñal nit da ngay muñ yërmande daal moom boo muñal la lay wax muñal boo ñëwee di wax mun la muñal boo muñee loo soxla di ko am boo bu ma fi ñëwee bu may ñibbi duma ko nangoo tàggu ndax su ma ko tàggoo dama may jox xaalis man man ko man maa la war a jox waroo maa jox mun ma boo amee di ma jox lu baree baree bari lépp soutenir lépp laa la wax looy xalaat loo lu baax fépp la ma féete man man mii xadika bi man man maa ñaax kenn kul papa maa lay nuyu. waaw ñu leen siyaar di leen nuyu eh, tamit di leen tamit sigi leen di gaale ndax eh, yéen ak moom yéen bokkoon eh, liggéey bi yéen bokkoon milieu bi surtout milieu làmb moom ko eh, Boy Bambara way tudul Boy Bambara Aliou Camara la tudd Aliou Camara couleur la du Bambara muy xalé ku tudé won eh, Boy Bambara Est-ce que dafa mënoon prier eh, mën def so ki prier yoy ni koy ki Boy Bambara dafa ki quoi et mom nag vraiment doomam yu góor mi man ak yam ñoo bokk ndeeg bàyyi Eh, ñoom boo leen di xool seen jeunesse lépp suñu kër lañ ko defee muy moom Aliou Camara Boy Bambara ñuy eh, wax Mbaye Guèye Tigre Fass ndax bu mu nekk soldaar suñu kër lañ ko jëkk joxee ngemb sër mu ngemb moom moom moom moom Mbaye ñoom Moussa Diamé ñoom eh, ñoom ñoom ñoom ñëpp ñoom Birame Ndiaye Grand Dakar la dëkkoon ñoom ñëpp dëgg yàlla ah moom wax dëgg yàlla ku ku ku ku bëggoon nit la ku amoon yërmande la tamit ku bëggoon mbokkoom la tamit euh, ku mën a maslaa la tamit ku bëggoon waxtaan la waaw ah, euh, ku ku amoon yërmande la si ay njabootam. tey génnum gi moom bon vraiment dina métti chez chacun parce que même sax euh, koo xam ni sax bu nga miin ko rek. bu la woon ginnaaw dina métti mais na xam nga yàlla nag moom comme si moom lañuy jugee jugee si moom la ñu jëlaat eh, day day yëfu julit eh, ñaan yàlla rek yàlla eh, yërëm ko yàlla bañ ko àtte si jëfam mu àtte ko si yërmandem moom parce que yërmande yàlla rek moo wér moo wér yërmande yàlla rek moo moo moo moo wóor yàlla àtte ko si yërmandem si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam njaboot gi nag yàlla bàyyi leen fi bàyyi leen fi ñu góorlu ñu topp ay tànkam ñu góor góor seen bopp seen mbirum àdduna seen mbirum diine nga xam ne wax dëgg yàlla amoon na diine jullit la woon bëggoon na ay njabootam tamit à part làmb moom vraiment ku ku ku bëggoon njabootam la ñaan yàlla rek yàlla defal ko defal ko jàmm yàlla yokk defal ko yërmande yàlla jégal ko yàlla xare ko ajana ngeen ma ci laajee dinaa ci sawar ndax ku baax la woon tey bu ma yeboo ni la këram gi bi mu koy defar man la tegoon lépp ci sama loxo ku bëgg njaboot la ku baax la uuf na ñëpp depuis mu ñëwee ci koñ bi ba léegi xàmmeewul ku mu jur xàmmewul ku mu jurul man taawam la ma defoon lu muy def daf ma koy wax lu muy waxee daf ma koy wax réeroowuñ ci dara bañ na ko doom bu ñu waxee danaan leen man ami jum mooy sama taaw maa yoroon travaux kër gi maa yoroon lépp lépp maa koy defal ah ñun tey dañoo am naqar bi ko ñaanal yàlla nag fi mu jógee tey fa mu jëm yàlla nag ko dàqal yàlla bu mu rëccu lu mu fi doon jógee loolu lañ koy ñaanal yàlla waaw. ndax mën eh, jikko yu baax nag ndax ku yaatu la ku baax la ku bëgg nit la alalam boolewu ko kenn tey dafa actifoon daal liggéeyam kenn doyu ko ci moom moo ci doyoon boppam su ñëwoon fii tey fekk maçon yi di liggéey day futteeku. kilotam lay sol ànd ak mason yi di liggéey tey ku mu gis yéene ne la jàmm bëgg na nga am liggéey parce que tout le temps mi ngi seet lu nit ñi mën a am ba mën cee am dara chaque fois day proposer xale yi ay liggéey su ñëwee fii ñëpp lay def loo liggéey ñëpp lay jox loo xam ne dinga ci mën a am tey boo wàccee yóbbu sa kër waaw mm-hmm. gisal feebar na ba ne ci diggu feebar bi xale yi bu ñu yegsee dañuy yéeg ci kawam mujj gi ñun ñooy dàq xale yi day bañ mu ne bu kenn dàq xale yi tànk yi da doon metti mais da doon jël xale yi di uuf moom daal li nga mën a wax si moom mooy zéro foot daal moom liggéey na àddunaam lii mu def fii nag yal nag ko yàlla fay ci biir bàmmeelam ku baax ku baax ku oyof. génnum tey naka la def si xanaa metti rek metti rek ak am lu ñu nakkari metti rek am lu ñu naqari loolu rek moo ñu metti tey waaw metti na trop. d'accord euh, euh, waaw maa ngi koy jéem parce que man maay bàjjanu gox bi fii mais ñoom tamit ñi ngi def seen rol parce que lépp sama loxo lañ ko teg ba ma xëyee le matin ba léegi aw ma jàmm même feebar bi nit yi ku koy seet si danaan bu kenn wax dara nañ ma woo ma ñëw man maay ñëw maay waxtaan ak nit ñi maay def lu ne ax lu làmb tamit ñu ngi ciy def lu am solo parce que ñoom def nañ seen délégation ci tabaski bi ñëw jàppale ko dimbalé ko wan ko né da nga teud fièvre mais ñun ñolay jappalé lool tamit test bu rafet la parce que nit ki muy ne ci yow ba fièvre war nga mëna juk sa tank séti ko sax waslu ak ba mu woné né nit ki kat sa nit la won am lu ngeen séqoon ndax ku né xamna lu mu def ci lamb ji waa autorité yi am luñ ci def parce que man mi di wax ak yow tay ci maire bi la nek di ci liggéey and ak sama maire tey ba ma ko waxee ni booy bambara dafa làqu ba léegi dafa am lu ko nakari dafa jàpp dana ñëw fii ci biir feebaram ah ci biir feebaram nag gisuma ko ci daal waaye man mi nekk ak moom de lépp loo xam jëlee naa ko ca maire bi ci moom dina ñëw ci moom te lu ma am ca maire baat dinaa ci jàppale njabootam ndax moom mënul mu nekk fépp ñun ñi nekk ci terrain bi ñoo ko fi nekkal bu muy ceeb joxee nañ bu dee dëwlin joxe nag ndimbal bu ñëw ca meeri ba damay njëkk a génne waa këram ba euh, waaw danañ ko jooytu dañuy am lu ñu metti parce que dëkkul woon parcelle lu yàgg moom bi mu fi nekkee yàggul Grand Dakar la nekkoon. bi mu ñëwee fii presque yàgg bu jabaram gaañoo tuuti tuuti rek la ñëw fii mais li mu fi jot a nekk ak ñun ñu ngi bay suñu waar ci waar bi mm-hmm. noonu la demee. feebar bi naka ngeen doon dundee moom. ci biir feebar bi ñu doon dundee ak moom dinañ ko seet nañ waxtaan ak moom di nemmeeku ay ay jabaram ñun ñëpp benn lañ on est ensemble daal noonu laa la ko mën a waxee waaw. ok merci beaucoup. waaw waaw man nag euh, vraiment mën naa ci euh, mën naa ci euh, wax tuuti ci li ma xam. ak lii ma dégg euh, moom euh, mbër mi euh, moom Balla Gaye moom Balla moom xaw moom lu mu ko defal Balla Gaye lu mu defal moom Alioune Ba Alioune Camara Boy Bambara mais Alioune Camara daf ko bëgg moom xaw moom nag lu ñu saq ba relation lañu am ñoom ñaar benn affaire ba la leen lié ñoom ñaar mais moom xam naa daa ku bëgg Balla Gaye la encore une fois balagay bu fekkee ne leen ni seetaan seetaan li mu gën a am considération si si si si Boy Bambara gën a am considération si ay njabootam parce que kii fi jóge daf ko daf ko gëm xaw ma lu ñu seq nag xaw ma ko vraiment lu ñu ko bon sama jaar nag nee na ma euh, nit euh, vraiment moom ba léegi loxoom ngi si sama jarbaat ne moom ko wax ma yaam ñoo baay nee na ma daal vraiment nit moom loxoom mi ngi si moom guddi ak bëccëg vraiment ci bi ma Maram Faye bon di dem na si lu ne nee na Matar Ba moom nee na ma Matar Ba mais am mais daal toogal naa daal ak booy bambara daal mu xamal ni daal bëgg na Balla waaw moom loolu moom daal am naa si daal lu ma fekkee borom wax ma lool li des nag damay dégg waaw damay dégg waaw kon nag encore une fois euh, ñu ñëpp ay sénégalais lañu euh, ak ku mu mën doon nag nañuy jàppalante daal waaw nañu jàppalante te milieu lamb gi nañu jàppalante quoi seen biir parce que ñoo bokk milieu bi ñoo bokk ñoo bokk même objectif daal waaw nañu jàppalante eh, maa ngi sant di leen gërëm. wasalaam